pare nañu ngir pare ne seen candidat Benno Bokk Yaakaar di Amadou Ba ñoom waa Benno Bokk Yaakaar bu diwaanu Bambey yi jël nañu seeni i parrainage kii di coordonnateur parrainage bu diwaanu Njaareem Pape Diouf di leen woo ci ak Benno na leen am commune bu ku fa dañ koy dox di ko wax ay mbokk lañu nan dox wax ko defee problème yu bari ñu dindi bi di Mor Ngom moom da yëkkati na fay kàddu ne ñi nga xam ne dañoo bind ak bataaxal bañ a teew sa ndaje ba waroon nañoo teew ngir ñu mën a waxtaan. dañoo bind leetar ne mënuñoo teew ci bis maa ngi jégalu bu baax baax mais su ma sañoon ñu teew ci bis bi parce que lu tax ñu war a teew ci bis bi nee nañ dañuy collectif collectif de la politique de Bambey kon bu fekkee ne collectif de redynamisation mooy politique boo xam ne dañoo bëgg mu dundalaat politique ci Bambey wax dëgg yàlla bu ñu wooyee événement politique bu mel nii ñu mën a teew mais mais nag mais nag bu leen ko kenn waxal wala ñaaxe leen ko wala ñu wax ci lenn loo xam ne nii dafa teggin ku nekk da nga am sa gis-gis moom mi la sax mu ngi leen di tàllal loxo ngir ñu bokk liggéey ngir Amadou Ba moomule am ndam. lu ni mel nag ki nga xam ne moom moo di coordonnateur régional bi di Pape Diouf nee na dina dugg ci siège yi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir Bambey ngir ñu waxtaan njaboot bi yëpp daal di booloo. la dellu nag mooy siège yi wax na ak ñoom dinañ toog suñu daal a taw pour nga jàmm am nangu nañu ko dinañ ànd. ndaje ma nag ay kàngam yu bari ci benn bokk yaakaar bu Bambey teewoon fa ku ci mel ni ministre Ngor Ngom coordonnateur Pape Diouf ambassadeur El Hadji Dia président conseil départemental ak maire yu bari yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi ka ca njëkk di Assane Dia.